lakk mu ngi commencé 9h. fi lañ tok ci te ba wacc nañ ba wacc dem sax ay 9h muy sahar ci biir quoi. Mhm. après ci lañ leen laaj ñu ne pàkk bi mooy ñu ne lañ leen di woo mais sapeur mama boobu ñu ngi leen di wo mais ken mu leen a jot. parce que da ngay def 18 tapé appel mais du dem man maa mujj tal sama moto dem sen poste quoi rompien gaar garba comme ni boy bi wax léegi sang rek ci génn no ñëw fek mu commencé da no wo ñëw fek lak bi commencé non dal la mbir mi demé ni nii waaye li fi yàqu mom bari na lol mom li nu yaakar ginaaw yalla ak yonenti mo fi lak man sama 3 place lak na ci bir yo xamne ne mom ko yaangi ni ramass nañu première fois ramass nañu même pas une semaine ta affaire bi neñ ci kaw la jógee parce que police la andat goudi lañu ñew jël ko tay ñewat na lak ñun xamaguñu ba lan léegi moko lak ramass bo xamne goudi ne la dañu ñew japp ñu jël suñu bagage yobbu ko boole ñi ci bir ak ñi ci biti sama place a ngeen ci buntu ba dañ ko dajje jël fa awma ma fu ma ko mën a en même temps na goudi la lak parce que ma ngi dëkk parcelle jël taxi ñëw sama morom jël taxi ñëw donc kon ñun mënagu ñoo xam lan moo fi lakk lan moo ko lakk mais nag suñuy million moo fi lakk. man sama xaar man li ma xam ne maa ko la sama wóolu lu mu néew néew néew 40 millions mat na ko ci li ma sama bopp man mat na ko. avanti nag bëgg démb la ramasse fii li ñu tegal fii ramasse bi amul benn bant boo xam génne nañ ko yalwaanuñu nanu bàyyi ñu liggéey suñu liggéey te bàyyi duñu yàqal parce que mënoo ñëw jël bagage dañ doon daan suñu doole léegi bu ñëwee ma xam ne lakk na bu ñu bàyyi fi ñu liggéey ñu a liggéey suñu liggéey man système boobu laa fay waxee man loolu mooy rek diggante màggal geeg yi nga xamante ñu ci bëree bëri fi ñu toll nii boo leen xoolee dem nañ Touba màggali seeni place ñu ne leen lakk na ginnaaw ba xam nga ne loolu neexut waaye nag dañ koy sant yàlla mi nga xamante ni moo nu ko joxoon te xañ na dinañ wóotalaat lu nga xamante ni moo ko gën samay caabee ngi nii lu wér peeng samay facture ngi ci biir alal ju jeex la fi lakale sama morom ëpp li ma fouf lakale ko fi gis naa goo xam ne ni bët jama la teg yoo xam ne ni buntu cent mille francs boo ci multiplier 100 buntu ñaata lay bëgg a doon soo ko xoolee plus de 200 et quelques millions yoo xam ne dafa yàqu waxuñu ak leneen denc nu fii xar yàqu nu fi dañu fi daan doole bu ngoonee nu ñibbi message bi nag maa ngi koy lancé ci Macky Sall moom moo ko mën a saafara du keneen ku ko mën a saafara sapeur pompier bu taxawee oto bi dafa war a am ndox su jógee day ànd ak ndox su jeexee mu soog a barrage la ci van def naa Europe xam naa la fa xew ku ko wee di nga dugg ci média yi nga xool sapeur pompier ni ñuy liggéeyee yeex gi metti na ba pare amuñu ndox bala ñuy barrage leban bi le war a na deux heures de temps safara mënul taxaw di xaar lii mooy suñu problème Sénégal